yaa moom kàddu gi. Aminta fitna ji ngeen ñu indil ba nit ñi demuñu voté bu leen ko fi indi ci plateau bi vraiment bàyyi leen. non non on se calme waaw nañu dal waaw nañu dal pour ma buñ ko def affaire jigéen. buñ ko def affaire jigéen. di ko def ay affaire borom musóor nañu dal waaw fii ay responsable fi nekk nañu waxtaan toute responsabilité. ay larbin yu nekk ak Ablaye Wade. dafay xaw ma na na kuy larbin bu nekk ak Ablaye Wade parce que yow Ablaye Wade fal na la ministre. deux mois après ñu génne le ministre nga nga tàng xol ngay bëgg nga mer ab mer parce que génne na la ci gouvernement <laughs> kooku man je n'ai pas de recevoir euh, de leçon à recevoir de ma sant yàlla ba ma génnee ci Ablaye Wade voilà mais yaa ngi xoolal le micro est là le micro est là Marie ba léegi añu woon bon sur la question gouvernement ba léegi nga noonu Ablaye Wade yaa ngi woon suñu biir yaa ngi woon suñu biir bañ la génnee ba léegi nga def ñu noonu Marie Thérèse ma wax ba muy wax d'accord moom laa wax moom laa je regarde je calme voilà moo tax nga def fa voilà voilà Penda Penda je veux je veux bien waaw Penda ah, Penda Penda d'accord d'accord non téléspectateur yi laay wax ak. lala bàyyi ca Ablaye Wade xam nañ ko s'il vous plaît aussi tamit pour ñu recadrer le débat. je pense waaw d' accord d' accord on est venu pour. analyser des élections mais oui oui d' accord te soo waxoon ni que diw kii mooy ñëw ak ñëw. xam am na yoo xam ne du ma bokk ak ñoom plan d' accord d' accord pour revenir sur le sujet du débat et pour ñu bañ def un débat personnel. je préfère parce que dañuy euh, analyser waaw nañu ma bañ saaga. waaw d' accord ci plateau bi parce que buñ ma traité ay larbin man je suis fier d' être larbin de Abdoulaye Wade man. waaw d' accord waaw d' accord mais mais je suis fier d' être moom bu nekk larbin. waaw d' accord ma mais mais na recadrer na recadrer na nga bi robinet bi mu wax nii bu nañ ko fi génnee wala rek ñu waxante ko defante ko waaw parce que larbin paasewul

parce que aussi tamit nañ waxante dëgg fii dañ fi ñëw pour wax li nga xam ne moo ñor sénégalais yi jàng non s'il vous plaît pour pour ñu déglunte indiwuñu débat bi pour xuloo moi j'ai posé une question ke est comment analyser ces résultats ay ñu fi pour de débats personnels parce que ku nekk kuréel nga fi toogal